wooy sama gars yi gis ngeen tey tey Maroc fii nii dafa yëngatu quoi suuf bi dafa yëngatu quoi billaay ñëpp génn ñëpp génn instant bii nii si biti booy ñëpp génn si biti ñëpp génn gis ngeen gis boo fële boo fële ñëpp génn instant bii nii ñëpp ñëpp génn instant bii suuf bi moo yëngatu quoi suuf bi moo yëngatu man damaa nekkoon si kaw rek. ma gis affaire bi muy yëngatu gars yi yëpp wàcc kay yëpp wàcc suuf bi moo yëngatu bâtiment yëpp yëngatu ko billaay loolu moo xew Maroc fii de instant bii nii instant bii nii loolu moo xew Maroc fii 23 h moo xew fii quoi suuf bi dafa yëngatu fii. Euh, panel bi pouvoir et opposition ñun de on a failli frôler frôler la mort ici au Maroc léegi léegi léegi léegi léegi nii dañ fi am benn tremblement de terre. gisoo Maroc mbedd mi ñëpp génn nañ sur Casablanca yàlla sutural nañu nag ba dara amul tremblement de terre bi dafa duré benn euh, dix secondes mu arrêté fekk muy tombé ñu ngi doon reer mais yàlla sutural nañu ba dara amul gisoo ñëpp a ngi ci mbedd ñëpp ñëpp génn kenn ñemeetul dugg sa biir kër ndax tiitaange soo mbedd bi instant yi échappatoire la ñuy wër nii mais sant yàlla rek yàlla rek a mën asalaamaaleykum jërë ngeen jëf mbokki internet yi ñuy suivre ci wasaare ñu ngi leen di nuyu leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen cant ak ngërëm ñeel na leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su nekk ñu ñëwaat ak yéen ci benn xibaar boo xamante ne nii jot nañu ko fi sànq muy euh, tremblement de terre ñu gën goo xam ci suuf su yëngu suuf su yëngu soosee nag ñu ngi ko nemmeeku foofee ca Maroc Euh, ni ki sànq rek bi 23h euh, di jot ci la jot xibaar bi suuf si daal di yëngu foofee ca Maroc euh, waaye li ñu mën a jotagum ci bilan bi daal amagut ay ga yàqu-yàqu yu bari yu yu yu méttee noonu waaye am na ci aussi tiitaange ak njàqare moo xamante ne nii gane si na mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi dëkk ca gox boobe waaye rek li ñuy xamle ci xibaar bi mooy. Euh, tremblement de terre boobee yemut rek ci Maroc waaye am na yeneen dëkk yoo xam ne jot na leen a laalaale lu ci mel ni Gibraltar Mauritanie Portugal Espagne ba ci Algérie li ni mel nag mel ni dafa nekk lu bees luy doog a yegsi ci ci yile gox ndax tey bu ñu xoolee euh, tremblement de terre fi ñu ko daan faral di nemmeeku ci li ëpp euh, dañuy gis ne euh, dëkk yi nii ay gan lañu ci ndax li ëpp lu ñu doon gis ay tremblement de terre ci ci àddina bi dañ ko daan faral di gis ci dëkk bu ci mel ni fi am ne moom mooy Siin doon ko nemmeekoo aussi ci dëkk bi nga xamante ne nii. Euh, moom mooy euh, Inde doon ko nemmeeku euh, ci beneen dëkk buy Syrie ak Turquie yooyee dëkk daal bokk na ci dëkk yi nga xam ne daanañ ci nemmeeku tremblement de terre yooyee fi ñu ko daan faral di nemmeeku depuis 1990 ba 2022 fi mu ëppoon gënoon a bari bokk na ci Siin nga xam ne ñu ngi doon enregistré ba 182 lu ci mel ni Indonésie 161 lu ci mel ni Iran Euh, téeméer ak juróom-ñett lu ci mel ni Japon 94 euh, di juróom-ñeent fukk ak ñeent États-Unis di euh, juróom-ñaar fukk ak juróom Turquie di juróom fukk ak juróom-ñett Inde di juróom fukk ak juróom-ñaar Philippines di juróom fukk ak ñaar loolu bokk na ci fi ñu daan nemmeeku ay yëngu-yënguy suuf waaye li xew a yéeme rek mooy jamono ji ñuy wax ak yéen mbir mi nag mu ngi xew ca Maroc xew ca Maroc bu ko defee xel yi day daal di dem ci sunu mbokk sénégalais yi nga xamante ne nii ñoom ñu ngi dund foofu njàqare tiis bi nga xamante ne nii tey euh, moom la ñu fas yéenee fanaanoo waaye du yem rek ci sénégalais yi ndax àdduna wërngal këpp lay doon euh, euh, léegi jaxasoo bi demee na noo xamante ne nii dëkk yi dañoo duggalante dëkk boo dem rek da nga fay fekk ay nationalité yu baree baree baree bari te it léegi li ciy gën a doy waar mooy àdduna bi yépp léegi dafa dafa dafa booloo nekk benn say nekk benn bopp. Euh, lu xew ca ca Maroc rek waa Sénégal dañ koy daal di naqarlu dañ koy dañ koy daal di métitlu noonee la ko ñeneen ak ñeneen di daal di métitlu noonee lañ koy naqarlu ndax aw tiis la xam woo xamante nii day dal ci kaw askan wi donc euh, mbir maa ngi nii lii la di euh, tremblement de terre boo xam ne nii xew na jamono ji ñuy wax ak yéen ci Maroc ñuy ñaan nag sunu borom mu wàcc yërmandeem ci jaamam yi ba mu bañ a am benn benn benn perte de vie humaine mu euh, yem rek ci yàqu-yàqu yi nga xam ne ni jot na faa am noonu te suñu boroom euh, saafara euh, dolli jàmm askan wi dolli leen a sàmm jërë ngeen jëf mbokk yi lii lañ leen indi ñu leen jox di daje ba léegi incha allah jërë ngeen jëf